weeru mai ab semaine lañ si tekk mu daal di tàbbi ci mbiri aji saara maanaam 8 mai bu Ousmane Sonko jàmmarloo ak Mame Mbaye Niang ba pare fukki fan ak juróom benn Ousmane Sonko fas yéene ak aji saara journal bi nee na li nga xam ne mooy tension bi nag jamono ji maanaam fitna ji ma ngi nii ñuy gis bi nee na fitna boo muy tuulee mënu ci ñàkk Maître El Hadji mi nga xam ne mooy layel aji saara daan nay wax ne aji saar jamono ji daan nay soulagé maanaam daan nay bi ñu jàppee date bi nga xam ne moom lañ ko war a atte yéen a kaay la sax xëy fësal si xëta mu njëkk daal temps de la justice maanaam waxtu yoon jamono ji daan nay jot ci mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko ci biir journal bi daan nay wax ne saa su yëkkatee ab tournée ñi nga xam ne ñoom la jàkkaarloo la maanaam ñu yëkkati wàllum justice boo xam ne lépp politique moo ci laloo yéen i kaay gii di li quotidien xëy duñu xibaar naan ñu fukki fan ak juróom benn ci weeru mai Ousmane Sonko ma nga jéem a ca kanamu chambre criminelle yéen i kaay gii di li quotidien Adji Sarr ci biir journal bi nee na jamono ji li nga xam ne moom lay maanaam justice bi def liggéeyam yéen i kaay gii di la turbine xëy duñu xibaar ci xët mu njëkk ne Ousmane Sonko ma ngi ci diggante ñaari mbir diggante Adji Sarr ak Mame Mbaye Niang yéen i kaay gi di Les Échos avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag nee nañu atte bii nga xam ne jàpp nañu ko fukki fan ak juróom benn ci weeru mai ñoom ci internet bi la ñu ko yëgee maanaam ci presse bi la ñu ko yëgee Adji Sarr ci biir journal bi nee na alhamdulilah ginnaaw bi mu déggee ne maanaam atte bi jàpp nañu ko yéen i kaay gi di Le Quotidien yor yor xëy dañu xibaar naan ñu gaay yi ñoo fi nekk di téeli téeli ak a wax waaye Ousmane Sonko lijjantiwu leen ndax jamono ji li mu nekk mooy nemmeeku tur bi nga xam xam ne na koy dooraat moom Ousmane Sonko journal bi nee na Tivaouane ak Thiès ma di yëgal nemmeeku tour bi nga xam ne fas yéene na ko faa def yéenekaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu procureur Abdou Karim Diop dina jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi talaata ji nga xam ne moom la ñu dëgmal yéenekaay gi di Libération xëy duñu xibaar naan ñu taskatu xabaar na retour de parquet yéenekaay gi di L'Info xibaar naan ñu député yi bokk ci coalition Yewwi Askan Wi jamono ji mer nañu ba maara détaillé ndax ñoom nee nañu mbooleem proposition de loi xam ne yóbbu ca taabu taabulu njiitul assemblée nationale dañu koy daal di rejeté ñoom Birame Souleye Diop nee nañu li nga xam ne mooy rôle député yi nag maanaam mooy contrôler l'action du gouvernement waaye jamono ji ñoom dañu leen ba mu ba mënuñoo def seen liggéey ñoom Birame Souleye Diop nee nañu am na ab proposition de loi boo xam ne ñoom yóbbu woon nañu ko mu jëm ci wàllum criminaliser borom ñaari tur yi waaye nag loole député benn bokk yaakaar yi dañu ko daal di gàntal dañu ko daal di rejeté député yeewi askan wi ñoom nag nee nañu lu jëm ci contrat arme 45 milliards yi bëggoon nañ mu leer ci ca assemblée nationale waaye dañu leen faa bloqué ñoom député yeewu askan wi nee nañu tamit lu jëm ci enquête parlementaire réfection building administratif loolee tamit dañu ko daal di rejeté ñoom wax nañ tamit ne bëggoon nañoo xam situation financière bu poste waaye tamit loolee dañu leen saa dara di bloqué maanaam li gudd gàtt ci biir journal bi député yeewu askan wi ñoom nee nañu seen liggéey mënatuñu koo def ci assemblée nationale ndax mboolem proposition de loi xam ne andi nañu ko maanaam dañu koy rejeté yéen a kaay ñu dialogue bi njiitu réew mi di ne nga xam ne ñuy waa PDS ñoom nag d'accord nañu si waaye nag jamono ji ñoom nee nañu bëgg nañoo xam nag lan ma lan la ñuy dialoguer ak lan la ñuy waxtaane waaye ñi nga xam ne ñuy waa PDS ñoom nag nee nañu bëgg nañ daal ci dialogue bi ñu daal di ci yokk lu jëm ci wàllum parrainage bi ñu daal di koy xoolaat mbiri Karim Wade ñu daal di koy attewaat Khalifa Ababacar Sall ñu daal di koy amnistie bi ñu daal di koy auditer ci teewaayu supervision États-Unis ak ñi nga xam ne ñuy waa Union européenne ak waa Union africaine ba pare inscription bi ñu daal di koy yokk élection présidentielle yi maanaam nit koo xam ne ñëpp ànd daal di koy organiser yéenekaay gi de yor yor xëy duñu xibaar nan ñu dialogue bi nga xam ne njiitu mi di président Macky Sall woote na ko li nga xam ne moo ko wundoo maanaam def ay manœuvre yoo xam ne bëgg nañoo déstabiliser coalition Yewwi Askan Wi loolee rek la waaye nag du leneen yéenekaay gi di bés bii ñu xëy fekk fa Madieye Mbodj mi nga xam ne mooy vice président bu Pastef ñoom nag nee nañu jamono ci li ñuy xaar ci dialogue bi boo xam ne bu leen leeree ne lu dëggu la waaye loolee la ñuy xaar jamono ci ñoom waa PDS ñoom nag rejoindre nañ Macky Sall ci dialogue bi yéen kay gi di Vox Populi nee na ginnaaw bi ñu ànd ak Khalifa Sall ànd ci dialogue bi ñi nga gi di Source A xëy duñu xibaar naa ñu ci lu leer nañ ñi ñi nga xam ne ñuy waa France Emmanuel Macron ñoom ñoo ngi waxtaan ak kujje ci Sénégal maanaam opposition bi yéen gi di Walf Fadjri xëy duñu xibaar naa ñu la France ñoom nag ñoo yey ji ñoom tiit nañu lool ci tension politique bi nga xam ne moo am ci Sénégal yéen kay gi di bés